bisimilahi macha allah asalaamualeykum mbokku téléspectateurs yi salaamualeykum soppe yeeg xarit salaam salaamualeykum fu ay mën féete ci àdduna bi du nu seetaan ñu ngi lay nuyu di la dalal ak jàmm ci sa kanamu télévision. Futurs Médias di leen ñaanal ngeen yendoog jàmm yendoog jàmm ñu ngi koy ñaanal bu baax a baax sunu PCA ak mboolem directeur ci biir kër gi rawatina nag le personnel aussi dañ cey bokk bu baax a baax ñu ngee dem seeti ñi nga xam ne ñooy kilifa diine yi ak kilifa aada yi di leen ziyaara bu baax a baax boole koog cofeel gudul jeex noonu la ñuy nemmee ko itam xalifa généraux yi di leen nuyu di leen baalu àq di sukk ci seen wet itam di sàkku ci ñoom ñaan gannaaw bi ñu leen ñaanalee yàlla ñu yàgg fi lool te mu ànd ak wér ñu daal di wax salaamualeykum mbokk yi dugg ci clinique yi hôpitaux yi ak dispensaires yi di ñaanal maladie yal na leen yàlla may ñu tane bu baax a baax a baax a baax ba gaaw dellu seen ay activité acteur de la santé itam ñu ngi leen di nuyu rawatina itam ñiy gunge malade yi ndax gunge malade rek doy na feebar lu yàlla xam doy na waaye yal na yàlla saafara lépp ñu daal di dugg nag ci prison yi di leen wax salaamaaleykum ànd ak di leen ñaanal yàlla ñu gaaw jóge foofu ba dem doxi seen ay soxla àdduna moo ni mel ku fi ne ku ne di nga ñam ci yi fii am mooy les hauts et les bas de la vie ànd ak lu mën ci am rek boo ko nangoo rek in incha allah yàlla dana ko yombal ñu ngi fàttaliku ñu ñu baaxoo woon di ànd ak ñoom tey ñu nekk ci njëggalu sunu borom njëggal googu yàlla na ko yàlla yokk ci barke Seydina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam ci loolu dañuy fàttaliku sunu ay wayjuru bopp sunu ay wasila sunu ay soppe di ñaan yàlla mu yóbbu leen ca aljana yi gën a kawe macha allah yal na yàlla faj ci seen émission wareef ma fas yéene ci rek nu nu koy defee saa su ne feggoo ak ki nga xam ne mooy Ndoye Bane ajaratu Mami Linguère itam dañ ko dalal tey ni ko bisimila li ma jaaxal kay dafa indaalewul ne ne Kebs Thiam itam dafay nekk ci club des ami de wareef daal di ñëw toog ak ñu échanger ak beaucoup de complicité rawatina nag itam ki nga xam ne mooy sunu invité du jour ndax sujet boo jël rek bu ñu jël rek mbokk yi dañuy bëggoo indi une personne habilitée à en parler ku ci mën a débattre indi ci euh, valeur bu bare bare ci waxtaan bi muy euh, euh, Serigne Dioum mi toog ndax moom itam bind na sax jëm ci héritage li may njëkk def gannaaw bu ma leen fàttali ko numéro bi di 88 628 22 22 88 628 04 05 ma jox jox kàddu gi Ndoye Bane ni ko bismillah merci beaucoup Eva ñu ngi lay nuyu di nuyu di dalaat bu baax a baax ki nga xam ne mooy mami mhm. gars yi namoon nañ ko baax mhm. ak euh, ki nga xam ne moom mooy di keps sama sama <laughs> sama affaire sa jigéenu bopp bëgg nga sama waay la moo may doxal yenn yi nga xam ne bëgguma mu siiw nga ni moo may doxal yi may bañ mu siiw moom keps mooy takku takk yi am na yeneen yeneen yu may doxal Euh, waaw ñaara xam maa ngi moom a xam waaw. KEPS mooy chargé des affaires cachées et privées waaw waaw chargé des affaires cachées moom a koy doxal. voilà yooyu daal. Mm. di nuyu sunu kilifa gii di monsieur Dioum. Mm. di waaw di ziar bu baax a baax. di <laughs> expert ci naka pire ya. waaw Cheikh Bambou Dioum. la tudd jàngee sant rek waaw jàngee romb nañ ko ci jàmm ak salaam lu ko ñaan rek yàlla nañ ko bokk ñun ñëpp merci Ban waaw sëñ bi ñaan na wax na ñaax na nit ñi ñu ñaan rek yàlla nañ ci yàlla nañ ci yàlla ci dégg topp amiin waaw ñi ñaanal ñëpp jàmm rek amiin yàlla na yàlla def ñëpp am jàmm ña ñëwoon nag ñu ngi leen di sant di leen gërëm ña ñëwul it su ne na leen yàlla teg ci yoon yi ba mu ñëw ba ñu ñëw amiin mhm. yaayu ne ne bismillah man day fas yéene naa sama tagal boo xam ne jëm déwén hmm. la la daloon yàlla la dalaat bu ko defee ma dëggal tagal yóbbu ko à gauche euh, ñëwal la ba mu neex man fi ne sama loxo dafa nekk ci soos te ci soosu laadum la nekk <laughs> doomu ñil benn coow suba teel soosu laadum da doom day xanaa war naa foor kon dañuy ñëw rek door liñ daan dooree ti deeti jërëjëfati Cheikhul Khadim Cheikh Ahmadou Bamba sunu yaakaar sama maam yàlla na mag Nelson Mandela tëpp koy jaloore di ziyaar mbooleem kilifa diine kilifa aada yi di ñaanal sunu maam Cheikh Serigne Mountakha moom Cheikh Mouhamadou Bassirou yàlla na yan bi woyof lool lool ci kawam ak mbooleem suñu xalif généraux yi di ziyaar di ñaanal yaay dégéen yàlla na giseeg soppeem ba Seydina Mouhamed sallallahu alayhi wa sallam mhm. kamari jibante boo yaa xaja yàgg fi loolu te wér loo fi yàgg doy ziyaar mama Kinushka yaay na fi suñu yaay Issa Diop ba waaye di ziyaar suñu yaayu bopp itam yaay Astu Jara yaay Astu Seck maire Ndoye waaye Kebs neel sa yaay maa koy ziar bu baax a baax ndax moom li ñuy wax rek duguba ak ña nga àndee ca tool ya wax dëgg yàlla ba ñu koy féetaleel Samba la joob booba du tey booba ñun ñëpp dikkaguñu Eva xanaa delluwaat di waxaat waa Sénégal ni leen léegi nag xam naa bu baax fi ngeen ma teg xam leen ne amatuma droit à l'erreur fas naa yéene li ngeen bëgg ci man ma def ko ndax ni ngeen ma taxawoo boobaak tey yàggoon na metti woon na ndax ku ne xam na ne jigéen bu tollee diggante rek sonn na waaye ku ci nekk yaa ngi woote yaa ngi gëstu yaa ngi ñaan ñi ngi yóbbante Eva ñi ngi yóbbante Joppante Ndoye Bane waaye damay jël njukkeelu groupe bi yëpp ma teg ko ci sa loxo Eva nga séddaleel ma ko ndaxte am sa bës say mbokki bopp teew sa mhm. mbokk yi ngay liggéeyandool nga geesu gis leen ku mhm. nekk di gëstu ku nekk di woote dafa neex man nag bi ma wëree sama xolak sama xel seet seet seet xam naa ne kenn rek laa bëgg muy TFM dama ko aimé boo aimé TFM def nga lu war macha allah ndax dañuy wax ne bu lëkk gërëmee bu lëkk. lekke alom na ko gërëmee cooy ñi ne bu mu ko gërëm. ndax bu nga faa nga ñëpp xam ñu ne bu pexem ci juboon du wadd ma ne waaye ndokk ba mu mënee ngolongo ba mën ko koo jottali. sunu maam Kocc Barma itam yàlla na ko yàlla yërëm mami Linguère bisimila mbokku téléspectateurs yi amaan yow mbokk mi yaa ngi soog a jàkkaarloog ñun ñu lay fàttali ne yaa ngi ci émission wareef wareef nag xam ngeen ko dafay dem ak ay fee yoo xam ne day am ci société bi dafay dem ci sunu ay vécu au quotidien dafay dem ci ay actualité yoo xam ne euh, bu nu ko yëkkatee ay thématique yoo xam ne actualité lay doon ba nga xam ne ñu ngi waxtaan ci wàllu miraas ñii ngi ci miraas ñii ngi testament ñii ngi wax ne euh, naka lañ koy waxee ci bien am na lu ma doon wax léegi euh, ah? succession ay ay bien ma ngoog noonu laa ko doon waxtaanee góor gi sànq liñ ci mën a indi ci waxtaan dafa bare dañ ci woo koo xam ne dafa bind livre jëm ci miiras ndax nee nañu da nga jàng alxuraan ndaxam da nga xam diine ahankay waaye taxul nga mën miiras ndax miiras itam euh, yoon la miiras itam ay charte la yoo xam ne ba àddunay tukki du changé jum defe naa noonu la ay wa bismillah jox naa la kàddu gi mina sheytaani rajim bismillahi rahmaani rahim wasalaatu wasalaam ala rasulillah walhamdulilahi rabil alamin maa ngi nuyu waa Sénégal yëpp waaye di tàmbali nuyoo bi ci yéen ñi nekk ci plateau bi ah vraiment di leen sargal di leen félicité fexe ngeen ba def euh, émission wareef muy marque déposé bu ñu reconnaître sur le plan international waa TFM tamit képp kuy faral di génn waa Jidda waa Makka waa France waa Arab waa États-Unis tous ces sénégalais yu nekk à l'extérieur bu taalee seen télévision jàkkaarloog yéen day mel ni ñibbisiwaat nañu Sénégal kon nag yéen gàcce ngaalaama émission bii nag da ngeen a jël thème boo xam ne waroon nañ sax di multiplier fréquence bi mais man gis naa ne yéen yéen a ngi ci ndax day loo xamante ne nii kër goo dugg rek soxla nañ ko. Mm. te noonu lay demee ilaa yow mu diin. kon war nañ ciy waxtaan di leeralal mbir yi ku ci am soxla boo ci posé question luñ ci xam ñu xamal la ko. très bien sant nañ ko euh, jërëjëf Ndoye Bane. Mm-hmm. waaw li mu wax euh, noonu la euh, dama bëggoon tey jii démb keroog bi ñuy bi ñuy. dama ne ndax jox naa kàddu gi Kebs ba pare sax moom. <laughs> Kebs waaw ñun waxtaan ba faf mel ni nuyoo na ay wa bisimilah bisimilah ba noppi. salaamaaleykum bi euh, di la nuyu Eva. Mm. di kontaan ci <laughs> koo xam ne waxtu yaa ngi toog di seetaan li nga xam ne moom moo di seen euh, am mbégte saa bu nekk muy sénégalais yi nekk fii sénégalais yi euh, réew mm. euh, fu waay mën a nekk rek tey nag moom bu ma xëyee xaw ma ku ma dajeel xéewal la xéewal la xéewal la xéewal la <laughs> maa ngi nuyu téléspectateur u télévision Futur Média fu ñu mën a nekk ci àdduna bi di rafetlu ànd bi waxtu wi émission bu mag bi lee di wareef mbégte laay am ak kontante ci toog bi ma fi toog di nuyu nag sénégalais de la diaspora sénégalais de l'extérieur yi nga xam ne télévision Futur Média seen wéttal la rawatina li nga xam ne moom moo di émission wareef mhm. ah, di kontaan bu baax ci teewaay bi di nuyu ñëpp ñi nga xam ne ñoo fi teew Eva ba ci kanam héritage d'une famille d'une entreprise familiale ci loolu la ñuy tëjee woon keroog. dëgg la ñi nga xam ni dañoo ubbi benn entreprise euh, mu doon entreprise boo xam ne yëfu famille la ka nga xam ne moom moom entreprise ba génn àdduna en général ci yiñ ci gis ci réew mi Sénégal ak yeneen i dëkk entreprise bi fa lay doxee yàqu naax saa yi tasaaroo te dañu gis suñu mbokku naar suñu ubbee entreprise comme fii Sénégal ñu ngi koy gis ay tour yu bari yu siiw yoo xam ne dañu judd fekk ko fi. Mm. mais Sénégal lan moo tax entreprise familiale yi du continuer du dem. waaw salaamaaleykum El Hadj Ndoye eh, question boobu am solo la bunt la boo xam ne ubbi nañ ko koroog mais xëy na xuusuñu si woon sax xëy na niñ ci waroon xuuse mm. mais ni nga ko tënkee it noonu la ñun dañ koy dund fii Sénégal muy tey liggéeyukaay yu mag yi ngay dégg li ci ëpp benn nit moo koy moom wala famille moo koy moom. Mhm. li ëpp ci entreprise yi. Mhm. muy démb muy tey kenn liggéey ñaq ñaq ñaq ba def loo xam ne lu rëy la ñu baree baree baree xaj ci te loolu économie bi muy jur moom moomu rek jariñoowu ci famille am yëpp rek jariñoowu ci ay famille lu jeex ñoo ciy dund di ci jariñu mais li ñu constaté mooy entreprise bu mel noonu tant que nit kooku mu ngi dund di ko doxal rek entreprise bi day dox mhm. mais saa yu ñu dawalee lu mat quinze ans vingt ans. Euh, yàlla na yeex mais dee du ñàkk. Euh. bu ñëwee rek dañuy constater ne ni mu demee ni la entreprise bi di demee. Euh. wala mu bloqué wu taxaw kenn dutu ko dégg. te entreprise bu taxaw ay famille ñoo taxaw te famille warta taxaw. économiquement famille bu ne bis bu ne bis bu yàlla sàkk liggéeykat ya la ñuy am war nañuy liggéey di ko am muy dem si seen famille léegi nag ñu constaté ne entreprise boobu bu taxawee. ah euh, bu nit ki faatoo lan moo tax entreprise di taxaw li ci ëpp problème mu miraas moo koy parce que bu taxawee rek ñi si am droit yëpp dañuy ñëw taxaw ne ñun am nañ ci droit léegi nii lañ ko gisee te niñ koy gisee. Mhm. day am li ci gën a bari différence uute ak ki ko moomal la mu doon doxal mhm. da ngay gis koo xam ne non man daal. Mhm. société bi intéressé wu ma dama bëgg man ma jot sama wàll man am naa beneen projet bu bokkut projet bi. bu boobaa nag day daal di casser dynamique bi nga xam ne moo amoon boo demee nag Europe. Mhm. ñoom souvent liñ ñu rawee mooy ñoom dañoo jàpp ne économie ak société boo créé escalier la boo xam ne nit ñi dañoo war a yéeg mais war a waruñoo wàcc escalier la kii moom dafa defar juróomi marche yu njëkk yi rek waaye des na yeneen marche mais bu dee Sénégal nag dañ koy yemale foofu commencé wàcc mhm. donc loolu moo tax koroog jox naa leen exemple oto yi ngeen gis ñuy daw fii ñu koy jënd muy Renault Peugeot Mitsubishi turu oto yooyu ngeen di gis yëpp nit a ko moom. dëgg la ay Google yi ngeen di dégg ah, tey ay ñaari nit ñoo taxaw defar ko. dëgg la ah, ay Windows yi ngeen di dégg. benn nit ñaari nit. mais dem nañu ba c'est des multi multi milliardaires. Mhm. mais ñoom arrangé wu nañu ba ñaari nit ñooñu dañoo fondé affaire bi rek mais bis bu ñu fi jógee loolu day wéy kon ñun Sénégal nag war nañ taxaw tamit pour xool. parce que miraas moom dafay lu jaadu lu yàlla digle la ci lislaam mais yàlla diglewu ko pour mu indi ak wuute sunu biir daf ko indi pour ñu mën a dund parce que boo gisee wax naa leen ko fii koroog mën a la nit ki taxaw tey am alalam ji moom bëgg a demee xelal xelam di pour xool nu muy séddalee alalam avant muy faatu te mille muy junni at ca ginnaaw avant muy muy muy jot ci alalam yàlla waxoon na ko yow alal ji su ëgsee si yow buy génn si yow nii laa bëgg nga séddale ko du yow yaa ko séddale. Mm-hmm. loolu mooy miraas. kon tey yàlla moo digle miraas moomu pour société bi continuer dund ci alal ji mais bindu ko woon pour nit ñi bu ñu ñëwee ñu bloqué alal ji léegi nag kon loolu nag la ñu war a jàngat ñun pour xam lan moo tax tubaab yi nga xam ne sax xëy na basé wuñu ci lislaam ñoom bu su euh, bu bu faatu dikkee. alal ji dinañ ko préserver te xenn xuloo yu mag ya du ci am ba ku ci nekk la nga war a am nga am ko société bu dee société bu mag la mu continuer dund ku ci nekk am sa wàll bu boobaa nag ci gàttal pour bañ a continuer monopoliser parole bi. Mm. Ah, parce que gis naa ne am ngeen yeneen question tey wax yaa ngi wax euh, macha allah. voilà ah, tey bu boobaa. Mm. au lieu ñu ne nañ tasaare kii ne man maa jël ñaari oto ah kii ne maa jël euh, euh, société bi nit ñu doon liggéeyee ah, mur ba kii ne maa jël kër ga nekk fële mu tas. nga xam ne tuuti moo ciy des loo xam ne mënatul dem bu boobaa mun nañ ne mais mais mun nañoo continuer entreprise bi ñu traduire ko en action bu boobaa action yi la ñuy séddale ci ci gàtt. nga xam ne ku ci nekk léegi di nga xam sa valeur action action yi duñ jël alal ji rek pasaare ko action yi lañuy ñuy kenn ku nekk xam loo am sa action lu mu lu action bi jur ñu jox la sa wàll dama koy tënk foofu ba ngeen am yéen très très bien wax nga ba wax wuute dañuy wax ne sax ñaaree fu wuute nekk yàlla neew fa ndax yàlla mbiram daf ko teg ci droiture ba nga xam ne mhm. fépp fu lënc lënc am rek nit a wàcc yoon bi nga xam ne moom la yàlla digle mhm. moo tax bu wuute amee daal yàlla yàlla new fa waaw xam nga wuute boobu li koy indi mooy nit ñi seen a ngëm yàlla. dëgg dafay des. wallaahi. dañuy wax ne gëm nañ yàlla ñi ngi julli ñi ngi woor. Mm. mais bu yàlla ne jaar leen fii. ñu ne man sama xel ma doy fee laay jaar. te seen xel moomu. Mm. dafa am lu koy commandé. seen liy commandé seen xel mi mooy seen bëgg-bëgg. mooy commandé seen xel. loolu mooy indi ren bi ndax man a yow bu ñu bokkee ndey wala ñu bokk baay. Mm. wala ñu bokk ndey ak baay. Mm-hmm. yàlla na ma yow lii ngay lii lii laa la ci jox yow. waaw te yàlla moo tax may julli bu fekkee ne yàlla waxuma woon jullil woorul du ma julli du ma woor dëgg waaye ginnaaw yàlla moo ne ma yow mii kat lii laa la ci sédd mm-hmm. te yàlla ji moom benn la yàlla ji ma wax ne jullil wooral mm-hmm. moo ma wax ne lii mooy sa wàll ci miraas bi mm-hmm. moo ko wax ndooy baan ndooy baan nag bu dee yàlla wax na ko del julli del woor dina julli del dina woor waaye warul wax ne Cheikh Bamba kat waroo maa ëppale ci miraas bi parce que mi nga bëgg a indi xel te xel moomu du xel maanaam euh, alal la indi bëgg-bëgg la indi xol la indi te xol warta mën a commandé xel te même xel yàllaa ko commande loo am am xel sa xel mii bu ci yàlla tegoon lu tuuti rek duutul nàcc maanaam duutul gise si dara ak ay dëgg waaw duutul gise si dara kon nañu bàyyi mbir yi ak yàlla même même même suñu justice bii ñu defar ñun nga xam ne moom dafa def euh, tribunal ay nit rek ñoo ko xalaat mhm. danoo xalaat ba jàpp ne nañu woyee ci bii loi mais loi boobu ñëpp xam nañ ne bis bu nekk mu jur coow bis bu nekk mu nga gis ne nañ ko rectifier juumoon nañu ci fii mais yàlla moom amul njuumte xanaa kay yaa koy bañ a def wala nga bañ a gëm rek waaye njumte am ci euh, am na benn question jigéen dana miiras dana soxna Eva dugg ca kër ne day day lijjanti miiras may nañ ñu ko ndax jigéen dina lan dina def miiras ndax dina def miiras man jàng naa alxuraan déet xam naa uh-huh. ma dikk ci miiras bi ne damay jàppale nit ñi pour ñu miiras non xam nga miiras waaw loolu yow da dugg ci point bu am solo miiras xam-xam la rek du leneen xam-xam la rek yow wax nga ko sànq ci tënk di nga gis koo xam dina gëmm tari la alxuraan. baqara ba naas. waaw te mënta mu raas mi dëgg la di nga gis koo xamante ne bis bu nekk. bis bu yàlla sàkk pendant quarante ans moo jiite si jàkk ji. te mën na ko te ñëpp xam nañ ko. mais mënul miraas. dëgg la mais miraas secret la xam-xam la bu yàlla joxe. du lu compliqué nag. mais secret boobu boo si boo ko gëstuwul man ko ko bañ a xam. macha allah macha allah léegi pour tontu sa question boobu. waaw dama la bëgg a wax ne xam boobu jigéen mën na ko am. maanaam pour tontu sa question. très bien jërëjëf Dioum Adja Linguère. wallaay namoo ñu woon ndax. ni mburu ni mburu di nammee supp noonu laa leen nammee woon. mburu xam nga mburu day namm <laughs> waa dañuy da ngeen a nekk ci ci lu am solo xam nga boo jógee ci takku suuf ñëw ci miiraas. Mm. da dem ci li nga xamante ne moo yëngal réew mi. Mm. Euh, sama sëriñ sëriñ baam Bamba wax léegi lu am solo. Mm. xam nga ki ñaak suurul bu ñeddee du ko tax a regg. ki ñaag ba giiroo waaw te suurul bu ñeddee du ko tax a regg te muy dëgg ndaxte li nga xool ne ko jàkk regu la mm. boo ko wannee du la tax a géex dëgg la kon nañuy doylu ci yenn yi imaan fu mu jiitu fu nekk yaakaar naa ne la nga fay lijjanti dina yomba sottal mm. mais dafa waxaat leneen lu am solo moo ñun Sénégal gëm nañ yàlla mais dañ ko wóoluwul est li ñu gëm mooy nit ku yorub sikki moom bu gudd lool te bari pexe mm-hmm. jonga ma ju rafet lool te gëmul yàlla ah. ndax ku taaru ba ku la gis bëgg la chaque jour nga nekk ci musiba. dëgg te loolooy jiite miraas mi. dellu si ku taaru lool. ba la gis bëgg la. waa waaye yow it nga yor jikkooy loo gis bëgg ca. waaw foo tollu tàbbal sa bopp ci musiba. Ah, góor gu la takk takk na sambala ndax boo lëggee bu miraas ma taxawee yaa koy jommal. te sambala ngi lakkale. day wadd ci kanam xam nga weenu jëdu am soutien moo tax nit ñi nañuy seetaan bu baax a baax li ñuy def ma dégg sama góor di wax lu am solo nee na ki ngiy dund këram di saxaar na ko wóor ne su dee moo taal këram dëgg aha kay ndax xam nga lu tax hmm. borom kër bu dajalee mboob yor ko ci ndeyjooram yor birika ci càmmooñam te guux essence na ko wóor ne lu fa tàkk moo ko taal kenn ku nekk sàmmkatu mbott bu nekk xam nga ba ngay sooxle xam nga li ci sa biir kër xam nga njaboot gi nga jur kon taxaw leen bala nga fee jóge dëgg waaye nag bu fekkee ne yow da ngaa nekk borom kër boo xam ne yedde woo yeete woo tey doxi guddi amin wu ñaaw wutin wu ñaaw mënoo lu di ca def lu ñaaw yedde woo yeete woo teg ko ca di yeddu tey doxi guddi amin wu ñaaw mënoo lu dul di ca def lu ñaaw ndax bu fekkente ne alal ji na nga ko dajalee yow lewul waaw yaroo ci sa njaboot ci farata si yàlla ak sunas Muhammad ah. yaroo leen ci diine ah. jàngaloo leen doylu ah. jàngaloo leen maandu soxna yi da nga leen a for ci mbedd mi nu la neex nga leen dajalee kii ndar kii ndakaaru kii tàmba ñu tàmbalee tey saaga nga bàyyi loola muy dund ci sa muy sa kanam bis boo deewee ñu taal sa kër kon nañu dellu siwaat xoolaat bu baax a baax a baax ci bi ñuy dund mm. li nga xamante ne moo mën a nekk ndax ala kulli xaalin li ma dégg Assane Ndiaye way ko barki démb nee na man Assane Ndiaye ragalu ma dee feebar laa ragal ndax ne laaj mënoo yëngal sab cër te am na ñoo xam ne keroog bañ feebaree lañ leen miraas ka leen miraas nag mooy jeeg bi nga xamante ne seen alal la tax ñu mën koo takk ndax nee nañ ko woon zatem daaw mun leen man déedéet ñu dem ba poste moo ñëw ne leen zatem ñu ko bis boo feebaree mu jox la garab gu lay nelaw loo mbaa ngay lox di signé rek boo dee sa waa kër gis faraas. nañu dellu siwaat waat xoolaat mbir mi. macha allah mami ñëwati na. wéyu Assane Ndiaye boobu am na solo géwélu bambara bi nee na dee bonul gàcce àdduna bon. nee na dee dara new ca waaye gàcce àdduna yal nañ ci yàlla musal. mami yal na nga yàgg xam nga nag gàcce àdduna. waaw mi ngi tàmbalee ci ngay dund di lëjal sa ginnaaw te demagoo. nga dee ñu sullil la say mbóot. allah néew bu nekk fa nga nekk lañ lay ñaanal la fay fekk ndax doo yóbbaale sa alal mm. doo yóbbaale sa juddu mm. doo yóbbaale sa taar mm. comme lépp fi nga koy ba yow lu baax la fa war a fekk waa léegi nag bu fekkente ne yow gàcce ak àdduna dalaa dal mooy sullil nañ la juróom ñeent fukki mboot ak juróom ñeent yoo xamante ne kenn bëggul woon ñu teg ko ci penc mi te tey lépp a ngi ci penc mi di weeru te lan moo ko fa weer alal ma dégg la sànq nga laajte lu am solo loo xam ne dinaa ko cof bala may jàll ndax jigéen dina miraas wala déet war a miraas ci bu maandoo dugguma ci diine damay wax rek ci ñun jigéen ni ñu yàlla bindee gis nga sama maam daf ma ne woon dama ko ne woon maam lu tax jigéen du jiite mu ne ma ndax yéen bu ngeen meree léegi wal bufta bi hmm. ndax ngeen naan na lépp maase ki leen tooñ ki leen tooñ naka bufta bi ñëpp jóge fi mbaa du bu ma doon juge tey bu luñ ma teg-teg ca place ba bu ma séenee mami li ngeen danaa ne moo ma defoon nangam daaw nigal bu ma jotee euh, PV am dana dafa am benn femme bu ma jiitleel barki démb ñu jëm point ma ak moom mu jekki-jekki xaw ma mbas ma xaw a tourné man itam ñu xaw a kii woon te ci oto bi mu ne gees ne ma wàcce vitre ma wàcce sama bos mu ne ma yow mbaadoo sama wujj wala sama lay toppaloo ma ne ko seen yi dinañ leen musa dofloo bës <laughs> keps mbaa du boppam lay wax. <laughs> boo demee moom la de mami rek. Eva Tra la fi fekk <laughs> keps Thiam ñu ngi waxtaanee thème boo xam ne. ñëpp mm-hmm. ñëpp ci xam dara macha allah. dëgg la dëgg la Eva dara yow mi nga xam ni itam. Mm-hmm. Euh, yaa ngi ci diggante dem ak dikk dem dikk dem ak dikk. Mm-hmm. nit dana la wax ca dëkk yooyu loo xam ne fii la ko war a ñëw fajee te amul chance man fee agsi. Ah, dafay am ah, dëgg la Eva ni nga ko waxee noonu la xam nga ay nit lu ñu juboo juboo lu ñu nekk nekk ci jàmm loo mën a xew. bu dee ji dëkkee rek affaire héritage taxaw rek jikko yi génn da nga gis ay nit yu mel ne muroog sow mais bu héritage taxawee geeru héritage daal di commencé tàmbali muy fii muy bitim réew muy fu nekk ci àdduna bi mu nekk nag euh, loo xamante ne euh, dafa bëri fànn ak aspect yoo xam ne mun nañ koo aborder ndax nag euh, booy wax ñi nekk fële ak fii sax léegi commencé nañ ko ñi ngi wax waxu souscrire li nga xam ne moom moo di assurance vie c'est la vérité da assurance vie loolu mm. point bu am solo la ci héritage mm-hmm. pour que yow boo fi nekkatulee sa njaboot wala say jabar ak ñi nga fi bàyyi eh, mën a ayant droit yi mën a euh, jël ci loolu bénéficier wu ci hmm. mais souvent day poser problème aussi hmm. euh, loolu benn aspect la am na beneen aspect boo xam ne également day sonal nit ki mooy que comme ni nga ko waxee nit dina nekk bitim réew am fii euh, mu génn àdduna hmm. li nga xam ne moom la war a doon wala lam fa doon liggéey wala lam fa bàyyi luwaawu dëkk boobu ak luwaawu fii bokkul souvent da ngay gis koo xam ne day liggéey ay ati at liggéey àddunaam yëpp bu génnee àdduna bu ñu koor bi ay bien mën a jotale te loolu tam yaakaar naa ne war nañu mën a teg ay mécanisme yoo xam ne dina permettre kii liggéey à l'étranger bu génnee ndax dee day bette bu hmm. génnee àdduna njabootam ki nga xam ne ñoo nekk fii léeg nga gis ku liggéey 30 ans liggéey ay ati at bu génnee àdduna bien ya mu am sax mooy andi li nga xam ne moom moo di nëbbu man nag benn point rek laay wax hmm. gannaaw dañu ne lépp lu fi am il faut nga waajal sa bopp te boo waajalee sa bopp dina waral ngay souscrire assurance vie hmm. dina waral ngay def li nga xam ne moom moo di testament dina waral mooy nga def donation séddale sa alal euh, ci noom montant bi nga xam ne moom lañ ko waxee. Mhm. yooyu yëpp ay point la mais bu fekkente ne euh, lislaam daf ko euh, àndul ci loolu day poser problème aussi donc point boobu tam bëgg naa ñu ñëwaat ci parce que nag ñi fi waajalul seen bopp yëpp moom moo indil problème ndëgam da ngay waajal sa bopp sax après nekk ci problème mu nekk guerre héritage boo xam ne parce que ñi ngi wax léegi ne à l'étranger également dafay am day fekk ne tubaab yeeg ñooñu waajal na sañ bopp foofu keroog maa ngi seetaan benn reportage boo xamante ne da ngay gis nit koo xam ne mi ngi daw ci ginnaaw héritage am pendant vingt ans wala trente ans mu nekk loo xam ni am na ci benn exemple bu ndaw rek bu may joxe benn xale bu jigéen la boo xamante ne euh, papa ji reconnaître ko de son vivant mu ba mu dee bàyyi alal joo xamante ne xaw na takku ndax vedette la ku ñu xamoon mais bi nga xamante ne ni toll na ci war a dond gi comme que papa ji reconnaître ko woon yëf bi posé problème ba ñu am recours ay euh, test ADN ba mujj confirmé te papa ji amuloon benn doom mhm. donc ñoom it souvent foofu dafay nekk problème yu métti da ngay gis ñu ci gerante di ci rayante di ci defantu leen da gis ñu bokk ndey ak bàyyi mu jaral leen lu ne ndax fii xëy na dinañ def bataille mystique danañ def bataille judiciaire waaye ñoom bataille judiciaire bi moom moo gën a compliqué ci côté boobu mhm. waaw gisoon nañu lu ni mel ci Johnny Hallyday que ñun ñu nga xam ne dañ ko soppoon lool et foofu itam ni ko Kebs waxee également euh, da ngay gis ku génn àdduna ay ati ati at ñu topp la di la seet ne la ñëwal sa baay daf fi bàyyi woon nangam est-ce que loolu du sens méthode ak organisation doy ban loolu loolu dafa bari li Kebs wax tamit euh, fi mu dal noonu waaw da ngay dégg souvent ci livre bi moo koy lire bërki dem maa ngi dégg ah. fu muy bind faaw mu jox ñu ci d'ailleurs Euh, d'héritage maanaam mooy loolu mooy héritage bu ñu retardé soo xoolee ci fii ci dëkk bi sunu am na sunu mbokk yoo xam ni dañuy toog pendant des képp ngi naan vingt ans mais ça fait plus de cinquante ans ñu yegg seen i terrain am fi ay suuf. suuf su baree bari ñu am nañ ay sëti sëti sëti sëti sëtaat mais kenn miraasu leen am na ci ñoo xam ne comme yooyu ni nga ko waxee gis naa ji benn cas boo xam ne ñooñu ñëw nañ ci ñun ñi di ma laaj sunu sunu frère sunu papa dafa amoon doom nangam. d'accord ak yaayam tuddu nangam. Uh-huh. fi mu nii paa bi gaañu ñu ngi war a miraas ci jour dëj ba ba mu ñëwee ba demaat ñëwaatul te xamuñu fu ñu dëkk. instant bi mirage bi looloo ko bloqué donc li li ngeen wax yéen ñett ñi ñëpp mooy cas bi nga xam ne moom la Sénégal li dund li kepp sa bëgg a wax mooy chevauchement euh, d'héritage yi xam nga loolu euh, kepp sa posé na parce que wax na assurance wax na ak assurance wax nga donation wax nga bi muy chevauchement maanaam assurance kii yi xam ne miraas yi nga xam ne yàgg na ba indi ay jafe-jafe. Mm. Eh, mu loolu am ni mu amee Europe ni la amee fii. d'accord te te miraas bu xasee ba yàgg damay tàmbali si loolu su ko ñëw ci donation ak assurance parce que dafa lëkkaloo eh, bu xasee ba yàgg rek yow jàppal na dina am yeneen miraas yu mën a dugg ci diggante bi mm-hmm. eh, bu yàggee parce que am na problème bu tax ku contesté mooy comme yow kaa bi nga wax bu dee Europe koo xamante ne nii bàyyi na alal ju dul jeex. te amul amul amul doom te peut-être deful testament xam nga kaaw testament day daal di ñëw parce que loolu bokk na ci njariñu testament yow sax def mel ni junj ko te deful deful testament léegi kenn si doom yi ñëw taxaw ne man mooy sama wéyjur te moom jàpp nañ ne amul doom wala reconnaître ko woon mhm. kon benn conflit taxaw na te conflit bu xasee ba taxaw te réglé wuñu muy muy ñàkk déggoo bu xasee ba taxaw moo xam dañoo dem tribunal di ko fa régler te tribunal régler wu ko moo xam ñëpp dañoo noppi rek mbir mi demut fenn. Mhm. li ñu war a xam mooy yàlla moom adduna bi comme montre day continuer dox loolu taxul adduna bi taxaw. Mhm. ñiy judd ci diggante bi dinañ fi judd. ñiy faatu ci diggante bi dañuy faatu. allah kulli xaal te mooy indi li ngay liir yow sànq ci livre bi. Mhm. ma tuddee ko chevauchement d'héritage. loolu mooy ay miraas yu fekkante ak jafe-jafe yi muy jur. parce que man ak yow ñun ñii bu ñu bokkee suñu ndey ak baay. ñu ne ah ñun de duñu miraas kër gi. Ah, dañ fiy continuer nekk rek hmm? ñun ñoo ko déggoo. Mhm. mais ñun dañ fiy jógee ni fi suñu wayjur jógee bu fi jógee suñuy doom wala suñuy sët. Mhm. ñun la ñu gisoon ñoom gisuñu loolu. Mhm. te ku ci nekk da ngaa takk soxna soo xam ne bokkatul ak yeneen soxna yi dara te ñoom ñëpp ñooy bokk nekk ci kër gi. très bien. jërëjëf Dioum ñoom ñëppay bokk nekk ci kër gi. nu uh-huh. teg foofu loxo dalal suñu premier téléspectateur salaamaaleykum mbokk mi. waaw tata Eva. naam. ziar naa la. maa ngi lay delloo ziara bu baax. yaa ngi si jàmm nuyu ma tata ak papa Ndoye Bane. dëgg la jërëjëf bisimilah. ah kontaan naa macha allah. alhamdulilah. ci suba doon naa woo Ndoye Bane sax bëgg ci waaye def ma ko. waaw. kii tonton Ndoye Bane moom chaque jour damay dégg muy wax benn affaire mu naan jigéen ñi dañuy ñaanal seen docteur yi pour ñu dee pour ñu tëngalee. waaw. allo. allo waaw man. du ma marié de ay 2008 la yooyu. waaw nga ni. non. <laughs> nag moom. Ah? ah tonton nee na d'accordul de nee na waxu ko mukk. waaw kon waaw kon ma ma baal. waaw ah yow daal yaa neex a waxtaanal àggalil. waaw kon man maa déggul parce <laughs> man sama sama borom ah. léegi man chaque jour suy xëy man dama koy xool bët bu nga xam dama koy ñeewoon sànq. dama koy ñaanal ba ba muy egg. Mhm. ndeysaan. parce que Youssou Ndour nee na. waaw. mën a xamoo takk suuf ci nay la bokk. ci nay la bokk. dégguma la de. takk suuf ci nay la bokk nee na. waaye Youssou waxul loolu de. nga ni Youssou Ndour nee na. déedéet xam naa ne waxu ko mais man maa ko waxee noonu. takk suuf sax ci nay la ah, waaw waaw waaw waaw. takk suuf sax ci na. daf la takk takk suuf. déedéet déedéet yàlla tere. déedéet. Ah. kii ah, sama sama borom kër nekk na nit bu baax moo xam ni. waaw. bëgg njaboot fonk njaboot. macha allah. macha allah. ta tataa déggal meer dem si yàlla bi da doon wax ni. Ah, chaque jour que jëfee <laughs> très bien moom moom dagg na macha allah elle a la forme melul ni Eva mi grippé toog fii. Euh, euh, euh, Cheikh Bamba yaa ngi. Eva bala muy dem dama am question boo xam ne dafay dabb keps bi. mais pour mu yóbbaaleel ma ko rek comme li nga wax ci miraas bu tardé. da ngay gis ku ñu miraas ku ñu war a miraas miraas ko ñu ne diw dafa war a doon ci miraas moomu. diw moomu faatu ci diggante bi. ndax dañu koy jox cëram. mu boole ak moom buñ koy miraas wala ndax moom keroog bi mu faatoo rek la génn ci miraas mi déedéet moom génnul ci miraas bi boo gisee ñu leen di wax ne miraas mu jot nañ ko def gaaw moo gën pour muy gën a indi ay jafe-jafe parce que kooku tey boo jëlee mooy cas bi ma doon wax jigéen ñoo nga xam ne ñoo bokk dugg ci dëkk ci biir kër gi te ñoom bokkutuñu dara parce que dañ koo takk indi ko ci kee ñu takk ko indi ko fi seen i doom xëy na seen i baay wala seen i maam ñoo bokkoon kon yéen li leen boole woon boolewu leen li leen boole woon si ne ñoo bokk ndey ak baay kenn du génn si kër gi booleetu leen bu ko defee nag ñoom ñu ne kon nañu miraas léegi léegi mais bu ñuy miraas mais miraas bi day am jafe-jafe ndax ki faatu ki nga xamante moo mujjee faatu pour indi sa question moom way juróom moo moomoon kër gi kon moom am na alalu boppam boo xam ne dañ ko ko war a miraas waaye am na alal tamit moo loo xam ne wàllam la si kër way te lépp ay doomam ak i soxnaam ñoo ko moom léegi mais ñoom tey mu day jafe léegi ñu ne ko yow par exemple tey kër gi nga xam moo ko moomal boppam ñu war koo miraas war a miraas kër gi nga xamante ni bàyyi moo ko moomoon bu war a dem si seen njaboot mais tey bu ñu miraas jafe-jafe day dugg foofu parce que du ñu xam valeur totale bi ñu war a séddale. waaw hmm. ah, duñ ko mun a xam parce que moom tey bu bëggoon a miraas tamit këram rek mais dinañ ne mais kër gee tamit nag nun koy def jox leen suñu wàll foofu wala lu fay su wàll looloo tax ñuy wax de miraas mi gën. mooy ginnaaw nit ki faatu na te leer na ñu leeral ginnaawam mooy li gën balaa yeneen miraas di ci dox tey gis nañ ay kër yoo xamante ne nii bañ koy seddoo ku ci nekk da ngaa amoon pantre euh, euh, appartement ci biir kër gi mais ñu dem ba benn néeg boo dégloo li may wax bu baax benn néeg juróomi nit dinañ dem ba bokk ko ci miraas benn néeg te au départ na appartement lañ joxoon kenn mais kooku moom bu dundee ba faatu bàyyi ñetti jabar mm. te te te la fa amoon te xay na appartement bi ñaari néeg la woon moom am na ñetti jabar ak fukki doom. Mhm. léegi kon tey ñaari néegam yooyu juróomi nit bokk nañ ko. te léegi problème day am parce que da gis ñu taxaw ne nañ jaay kenn ne man location ma gënal. Mhm. looloo tax ñu ne te buñ ko réglé woon ca njëlbéen parce que kër day am borom. Mhm. loolu la nit ñi mënta dugal seen bopp. kër ni ko kenn ki moomee munuñu toujours rek ñu ne fukki nit a ko bokk wala ñaar fukki nit a ko bokk. ay nit yu bokk bari ñoo ko war a bokk. kon pour question ku faatu. alal ja nga amoon fële tamit yow da yaa ko moom ba tey faatu gi nga faatu si ginnaawu mbir mi taxul ki nga dul doon daal mooy kii faatu ba pare way juróom soo ko faatu kooku moom du ko doon. Hmm. waaye ki nga xam ne bi faatu way juróom di faatu moom mi ngi dund. am na ci pa am na ci paar même bu faatoo wàllam woowu mu am njabootam lañ koy jox ay dooma ak i jabaram. góor gi nga xam ne tamit euh, ndoy maa ngi jégalu. Uh-huh. góor gi nga xam ne tamit dafa takk soxna. Mm-hmm. te bi muy takk soxna soxna si dafa yor alal. Mm-hmm. mais sëy bi amu ci doom. Mm-hmm. su faatuwee borom kër gi mooy doon lépp. Mm-hmm. wala ndax ay mbokkam ñoo koy doon. déedéet bu fekkente ne comprendre naa sa question yow da nga ne kan moo faatu si moo faatu. soxna si voilà. mu am ndax damaa gis koo xamante ne moom yooyu rek lay wër mooy jigéen ju am alal te amul doom mu takk la. waaw d'accord léegi sax kooku. kooku kooku moom moom miy wër moom la concerné. ne ko mu moom moom miy moom la concerné. mais loolu day problème c'est-à-dire que alaa kulli aleen ñaar fi nekk góor ak jigéen ak lan faatu góor day faatu jigéen day faatu ak lan am alal ak ñàkk al waaw ki bu dee yow sa amoo alal sax la nga am lu mu néew néew néew néew dañ ko war a miraas léegi nag bu dee comme yow ma jël sa kaa kooku mm. da nga ne ku jigéen ka la ku bàyyi alal la mm. ak jëkkëram mm. ak borom këram mm-hmm. mais amul doom bu boobaa jëkkër ji jëlul alal ji yëpp genn wàll alal ji lay jël muy un demi loolu la moom moo xam da koy soog a takk moo xam yàgg na koo takk mais soxnaam la genn wàllu alal ji la li ci des nag ay ay ay ñi bokkal ay frère am ñi mu bokkal ndey ak baay ñoom ñoo si jiitu ñi mu bokkal ndey ak ñoo si jiitu. bu ak lan yaayam ak papaam nag toujours dañuy bokk ci miraas mi bu dee ñu ngi dund. mais bi moom ci biir waxam sànq. sœur am moom li muy am du bari. ah kay sœur bi ki nit ki bu faatoo. waaw te bàyyiwul doom bàyyi freer ak sœur. maanaam ku mu bokkal ndey ak ku góor ak ku jigéen ñoom ñaar seen wàll. dañ koy séddoo góor ñaar jigéen benn. ah ba tey même même même noonu la ñu séddoo fii ay frère la mais góor ñaar jigéen benn. mais fan lañ fan nga waxee ci sa livre bi nii sœur bi sa. mooy dévantage. waaw ah waaw non loolu loolu beneen kaala la mun naa la ko tënkal nii xam nga bu fekkente ne dañ ne nit ki dafa faatu. waaw bàyyi fi sër rek. fekku jigéen rek bàyyi. waaw te bàyyiwu fi frère mooy mooy yow sa bi nga wax nii. Mhm. xam nga man dama ne la jëkkër. Mhm. mën nga jël kaaboo dama ne la jëkkër ji day am genn wàllu alal ah léegi nag bu fekkante ne daf fee bàyyi sëram sër tamit bu fekkante ne doom nekku fa muy góor muy jigéen sër ay rakk wala mag bu jigéen mm-hmm. ah kooku moom tamit genn wàllu alal la war a am comprendre nga ku jigéen ni ko ku góor war a amee ni la ko sœur war a amee kon daal intérêt bi mooy ku góor koy ëppale waa kay maanaam pour mu leer ci daam mbay sama doom bàjjen su deeyee moom de yàgg nga ko di. dambay koo ci non dama bëgg leen expliquer man waxee mu gudd fan. yàlla gudd dambay su dee bàyyi fi Binta Mbay <laughs> wala wala wala non par exemple Mare Mare Mbay su dee. ba fi alal. <laughs> rey Goro Fall jëkkëram. waaw mooy doon alal ji. déedéet doon alal jëpp. su fekkee Mare bàyyiwu fi doom. jëkkër ji te bàyyi na fi borom kër. waaw borom kër gi genn wàll alal jël jël. voilà léegi nag marem euh, euh, kii nday bay sëram nag. waaw kooku tamit genn wàll alal la wala jël. Ah. mais yow yow li nga wax ne da koo liir. waaw ah. li nga li nga sama. désavantage bi waa kay désavantage boobu. mooy kaa boo xamante ne nag sër boobu maanaam rakkam ji dafa tombeek si ñu war a donn maama nga maam ma nga fa maam maam mu góor mi bu fi nekkee. moom dafa am toujours par bu mu war a am muy un sixième maanaam maam day remplacer baay mais dafa am beneen taxawaay moo gis foo mara maam lu muy xaar ba booy waaw ah mën na fee nekk de maam mën na ko ah, yàlla nekk maam <laughs> léegi bon yow si si tënk rek cas bi nga tudd rek pour ma bañ mu bañ ma rëcc mhm. kaa boobu ku euh, maam fu mu nekk moo sœur bu boobaa affaire bi dafay changé eh, rek bu jigéen wala mag bu jigéen bu dee moom rek la genn waa alal lay jël mais bu fekkante ne maam la te frère nekku fa maam ji day taxaw place su mag ju góor jooju kon day daal di nekk góor ñaar jigéen benn si seen wàllu ñoom ñaar. très bien man bi ngeen di waxtaan sànq maa ngi koy wax ne keps bi muy waxtaan. Euh, dugg na ci waxi assurance mais ñu wax assurance bi taxaw ci mhm. assurance bi sama xel dem ci cachotterie mhm. parce que tey bu fekkee ne Eva dafa dem euh, souscrire dem euh, kile assurance mhm. di di cotiser di cotiser boppam pour assurance bi jóge fii te boobu waxu kook waa këram est-ce que assureurs yi question bi assureurs yi ñoo ko moom ndax dinañu dem woo waa këram ne leen diw daf fi amoon nangam loolu question la bu ñuy laajte ah, doy na waar de. Ah, yow Ndoye yaa koy wax de ah. damay laajte. Ah, doy na waar de lu lu a laaj de. assureur yi. waaw. kees galgala ngoog de. ko ko jox na leen galgal de ah. da nga koy yónnee soxna soxna Rama NCA bi. ñoom ñëpp waaw est ce que bu nit ki jógee ci àdduna. doon cotiser te waa këram yëguñu ne mi ngi doon souscrire na assurance bi. Mm-hmm. ndax dinañu woo waa kër ga ni leen. Euh, diwa ngi fi nangam la fi amoon parce que ci yoon ayant droit yi la ñu war a woo ñu jël mais léeg-léeg nit ki dana dund dund une vie cachée boo xam ne sooy def sooy def assurance vie ak ñoom seen sax dañ lay laaj en cas de kan la ñuy woo waaw ni ay numéro nga fa sa numéro jabara nga fa wala sa numéro frère. Mm. xam nga. non numéro nga fa est-ce que est-ce que coow li la. est ah, que du question de numéro nga fa mais est-ce que juba nga ca biir. mi Mia Ndour ñu ngi koy nuyu. jub mën na bañ a nekk ci biir man daal fekkee naa fenn foo xamante ne moom woo nañ doom ne ko fii sa yaay daal leboon bor comme faatu na kaay fay te moom yëngu doon moom dinañ la woo mais li li nga xam ne moom moo ci gën am solo rek mooy képp koo xam ne yaa ngi ci maanaam ci wàllu assurance comme ñoom ñoo koy gën a ñu woo leen. nañu voilà très nay jël ni micro. waaw mi abal ko sa bos. <laughs> très euh, est-ce que mën naa tontu tuuti. <laughs> waaw ne ma ne loolu daf ci am solo bu baax parce que souvent euh, da ngay gis nit ñi góor ñi dañoo xaw a cachotier dañuy nëbb yenn yi léegi nag ngay def sa assurance vie yaakaar ni yow. Euh, mooy loolu daal. nga dem ba génn àdduna say doom war cee bénéficier wu. te souvent ñi ngi laaj xaalisu assurance yi fan lay dem. fan lay dugg fan lay génn mm. euh, mënuñu cee sori torop ñoom nañu woote wax ci mais li ma bëggoon a xam rek te wax la ko sànq mooy que tey jii kiy waajal boppam fan lay nan lay def góoru jullit bi toog di seetaan télé bi tey bëgg a waajal boppam donte lislaam dàq na li nga xam ne moom moo di euh, euh, testament santaane na lii nga xamante ne mooy donation mais pour nga am assurance pour sa ginnaaw rafet donte loolu sax mënut a nekk ndax da ngay def li ngay def ba pare te du tere loolu am ki toog di seetaan tey bëgg bu fi jógee ginnaawam mbook lu mu gën a néew ci ay problème am naka lay def. waa léegi nag damay damay damay leeral. nangu nañu testament wala nangu. waaw kay loolu la waaw foofu laa jëm loolu la xam nga def ne donte l'islam. voilà dàq na testament te loolu rapport woon naa si korog. Ah. islam sax waaw non non loolu laa xam ne islam moo gën a dëgëral testament. kon benn waa Diop wuyul. dama ne bu fekkee ne déglu ngeen ma dama ne islam moo gën a déedéet ñooñu xamuñu li ñu wax ah, noo ki woote bu dee lii nga wax la ki woote wax ah. ki woote li mu wax xamu ko mm. ah, islam dàqul testament d'accord voilà islam seulement dafa tëral ay charte testament mooy wasiya moom lañ tudde ndenkaane islam dalaa wax ne sax yow soo demee ba wóolootoo sa bopp maanaam yaa ngi xalaat ne de léegi mu ñëw yàlla doo nga ko xam bu boobaa yow war mayeetuñ la nga toog ay fan te yorowoo sa testament kon loolu recommandation bu dëgër la war nga mën a bind sa testament testament mooy li nga wax nii lan nit ki lan lay waajalee boppam testament moo tax nit ki di waajal boppam maanaam lépp lu lëndëm wala lépp loo xam ne secret la boo xam ne yow yaa ko xamoon war nga koo bind pour leeral sa ginnaaw loolu mooy testament te islam daf la wax na ne la bind ko nit ñi nag la ñuy tëddee testament islam waxul loolu maanaam testament ku nekk nga may ko lu la neex islam loolu daf ko organiser moom islam religion bu organiser la daf la wax ne sa alal de war nga koo mën a may mais booy mayee si sa ginnaaw ne bu ma faatoo may leen diw may leen diw ñi nga xamante ne nii dañ lay dañ lay war a doon amoo droit tudd ci kenn ci ñooñu te ñeneen ñi ñeneen ñiy def testament loolu lañ dégg ñoom ci testament. boo doon wax mbokki téléspectateur bi mel ni Evatra. Mhm. définition wu testament ak donation. moom laa lay wax dinaa si ñëw si ñaar yëpp. testament mooy wasiya mooy ndénkaane ci wolof mooy nga nga nga bind ci këyit wala nga enregistré ci bande ne man kat boo fi jógee sama alal ji may naa diw nangam beneen bi nga ne doom ji maa ko jur wala juruma ko mu leer maanaam loolu la ñuy wax da ngay leeral sa ginnaaw ah maa jur lii wala fële kat France amoon naa fa kër te fekk na kenn xamu ko woon loolu moom mooy testament. mooy nga leeral sa ginnaaw. loolooy testament. kon gars yi dañuy jaawale testament ak miraas mais paa bi daa miraas boppam avant muy dem. voilà mm-hmm. léegi nag testament boobu nag. Mm-hmm. dafa am fu mu la yemloo. ci bu dee ci lislaam te xëy na yeneen testament yi peut-être yemloo wala foofa. Mm-hmm. parce que bu dee yeneen testament yi mën nga ne sama kër gi may naa ko sama doom diw. te beneen doom ji nga ne mayuma ko ah mais islam nanguwul lool. islam nanguwul nga ne sama doom diw musuma jariñ dafa ma doon sonal déshérité naa ko déshérité mooy du ma donn Euh, amoo droit boo ko bindee si sa testament kii def miraas mi day dindi lool mhm. mais testament daal pour leeral sa ginnaaw la boo fi jógee la nga am droit maye ko loolu wax nañ ko korok ki nga am droit may ko mooy ki nga xamante ne nii bokkul si miraas mi kooku mën nga ko cee bind comme sa sœur bu dee bàyyi nga fi ay doom ah, nga ne sama sœur de may naa ko nangam may naa ko kër ga nekkoon fële d'accord mais père am na différence quelle est la différence entre un enfant naturel may naa ko dégg naa may bi tam dafa am fu mu tollu dafa am ci lu mu toll lu da lay neex rek nga maye lu lu ne gaañ waaw kay maanaam ñetteelu alal ji mënoo koo weesu yow sa alal bu bu nekkoon 3 euh, millions <laughs> exemple hein un million bi moom mën nga koy séddale ay ñoo xam ne amuñu droit doon la. d'accord waaye mënoo jël un million bi na may naa ko sama jabar sàngam ndax moo ci gënoon baax ci ban. d'accord loolu lañ la wax ne mënoo ko amu amu amoo. parfait mais testament daal jàpp leen ne islam da koo nungu. mais daf ko teg si ay charte daf ko organiser pour pour a sa ginnaaw am na ñoo si mën a am na ñoo si mënta maye très bien baan balaa maa dem ci dama ko doon laaj la différence entre un enfant naturel ak un enfant adultéré waaw différence entre un enfant. naturel waaw adultérin mooy adultérin euh, mooy. ba nga nekk ci ci mariage bi nga am ka. waaw kay très bien léegi loolu la. maanaam loolu tamit ni ñi dañ koy jaawal mooy mais dafa am doom ji nga xamante ne nii. Mm. yàlla dogal ne kaka am am na ko avant muy sëy. amu ci sëy ah kooku ci tubaab moom lañ tuddee enfant naturel même ci ci constitution bi ci ci code de la famille maanaam ñoom seen wàllu woowu ñuy def sax. Mm. kooku. niñ koy séddale bokkul ak ki nga xamante ne nii ah. dafa judd ci ci sëy mhm. hmm? doom ji nga xamante ne nii dafa judd ci sëy mhm. mais mais ci njaaloo loolu nañ ko mën a tuddee kooku mooy adultérin maanaam ñaar ñiy sëy kenn ki dem na sëy ak keneen yàlla nañ ci yàlla musal ba am ca doom kooku mooy doom ji judd ci sëy mais enfant adultérin la mooy dafa judd ci njaaloo mais si biir sëy kee nga xamee nag dafa judd ci njaaloo mais du ci biir sëy kooku ba muy sëy ba mu koy takk sëyut xale boobu bu dee ci lislaam moom dafa leer dañ la wax na la kooku du donn baayam mais baayam du ko donn parce que lislaam ku judd ci sëy rek la reconnaître parce que dafa bëgg encourager sëy bëggul encourager li tubaab di tuddee débauche mooy fu la neex nga dem sëy fay fu la neex nga joxe fa sa bopp lislaam loolu lay daw moo tax mu kon soxna soxna si nga xam ni dafa am jëkkër dem foofu ba am bañ ëmbal ko feneen. ok doom jooju du doon. non foofu nag loolu laa ne euh, yow da nga question bu am importance soxna si nga xamante ne nii moom ñëpp xam nañ ne am na jëkkër mu foofu ba am doom feneen ate boobu du bokk ak doom ka nga xamante nii avant muy sey la am doom. waaw mais lu tax li sa lislaam wax ji yenn borom xam-xam yi nii doom jooju soo doom la ndaxte ci sa buum la juddu. waaw moom laa wax ni moo tax dama ne la. kooku mooy enfant si bu dee ci tubaab nii koo xamante ne nii si biir sëy la judd enfant adultère da nga njaaloo am ko moo xam ku góor ki la moo xam ku jigéen ki. kooku day doon. non dafa am point d'interrogation maanaam foofu dafa jaar li ñu naan tegal sa tànk fii. Mhm. dafa dafa laaj loolu. doo tëb rek ne day tegal fii sa loxo. man nag sama sama eh. portable bi dafa xumb loolu man soxna yi Ndakaar yi ñii ay genre ma waxati ma tuddati turam ay genre mi yaandu lañu dañuy laajte mais lii benn jigéen mooy laajte. nee na doom ji nga xam ni dafa juddu ci sàcc ay. si. sàcc ay lan mooy place am. xam nga tam laaj yi laaj yi dafa garaaw. boobu doom ah, la rek ah laaj loo doom. Ah, booboo gën a booboo gën a légitime yëpp nga naan ma. nga ni nga ni moo gën a booboo gën a baax. et puis doxala nga ni. booboo gën a baax man sàcc sa jabar la foofu sàcc amu fa. sàcc amu fa ay sàcc ay ay ay xam nga kooku moom man su ma yoree ñaari jabar amul ay ay ay loo def foo ma am a bi jaar rek fa jaar fu ma ni kepsi ni ma voilà fu ma kepsi ni ayel fee rek fa laay ayel xanaa na jël na <laughs> képp chargé des affaires privées de Ndoye Bane. waaw ma tontu ci doom ji ngeen doon wax sànq. waaw waaw waaw dans tous les cas mi ngi ci sëy. waaw ah. si la et cetera mais kii nag. micro bi daal moom ah, Ndiaye la sant. waaw Ndiaye la sant téye ko rek waaw waaw waaw. waaw voilà ah. léegi dama ne. question bi Ndoye Bane jiitu woon parce que kii nga mujjee wax moom jàppale moom soxnaam la kee ñaar ñëpp soxnaam la mais ñun bii ñuy traité moom du soxnaam ku góor ima imaam yàq euh, euh, euh, sëñ Bamba yàquma sama kile bi mais lii yéen a ngi ci thème bu garaaw boo xam ne danaa ko def thème fii Sénégal jar na ko jar na ko am say soxna. Mhm. soo demee 13h fële. Mhm. ayewuloo fa mais. macha allah nga demati feneen ayewoo fa mais macha allah. loolu lan la ci yàlla wax. waa léegi dama lay leeral foofu rek. loolu mën nga koy laaj bu ko laaj. du ma la laaj dara Ndoye Bane ak. kii rek. aywa du ma fa tax parce que question bi dafa am solo te bëgguma koo bàyyi bi mu posé woon. Ah, ah. mais du daw sa question bi. macha allah donc dama la bëgg wax ne. yow question bi nga woote. kooku bu fekkente ne dafa def foot war a dem si soxna see def dem demu fa mu dem si soxna see des kooku faute la def comprendre péché la am mais mais du tere dara xale bu fa juddu mu judd ci yoon. d'accord comprendre waaw. def na faute nag voilà. parce que dem na fu mu war a dem wala war na wala dara. na dem ak footam waaye xale bi kay moom moom deful dara. te ñu ba tey ñu ngi ci sëy. léegi nag lii problème nag mooy lii mu wax. waaw waaw kii dafa juddu ci sëy moom laa bëggoon leeral tuuti. xam nga yow danga ne kon kooku day donn ñu bëri dañoo jàpp ne rek dafay donn mais dafay donn euh, loolu la ñuy wax ci tubaab par défaut. mais du du donn de façon absolue. ah voilà ah. léegi dafa jaral leera ki nga xamante ne nii si biir sëy la juddoo. léegi dañ na moom kat bu juddoo ci sëy. Mhm. yow miy baay bi yaa nga France. bi ngay dem bàyyi woo sa jabar. mu ëmb. nga ñibbi si fekk ko ëmb te wóor na la ne du yow. yow bu la neexee. nga bàyyi ko. nga xam ne yaa yàgg àll. yaa xam noo koy justifier nga dugal mande mhm. nga baal ko. islam nee na la doom jooju dagan la. dafay doon. soo doom la waaw mais kële sama xol bu rafet sama lépp du teye islaam du ko nungu moom ki judduwul si sëy loolu mooy différence bi xaw ma ndax comprendre ngeen li ma wax wala. delluwaat ci nag delluwaat ci. donc dama ne. ki nga xam ne dafa judd si biir sëy. waaw nga tukki ñëw fekk ko mu ëmb. waaw yow boo nee bàyyi naa noonu. waaw waxoo ki euh, euh, bàyyi naa noonu. daal tudd doom ji ngénte ko utal ko tur sa sant lay jël sa tur la jël lépp la amul benn problème te day doon nag. waaw même nit ñi bu ñu xamee ne yow mi kat ba nga tukkee euh, say boo nit ñëpp xam ko. waaw mais boobu doom day doon mais doom ji nga xamante ne nag cas contraire bi la yow bi nga jëwee gis ko da nga ne déet man kat kii du sama doom soxna si ne la sa doom la bu ngeen ko werantee dañ ne da ngeen di waat. bu ngeen ko werantee bu werantee amee dañ lay wax ne da ngeen di waat su ngeen waatee sëy ba tas na te doom ji doo ko doonu du la doon. waaye façon dogg yooyu. gis na fi de. non déglu ma wala façon dogg yooyu. waaw dama lay expliqué dama lay expliqué te pareegu ma. bu fekkente ne doom jooju yow dangaa ñëw nga gis ne sa doom sa jabar ji ëmb na. waaw te nga mu biir la ne du yow. Mm-hmm. nga continuer di sëy ak moom. ba mu am doom. nga bëgg indi problème dañ naa la yow complice nga doom ji parce que da ngaa continuer di sëy ak moom boo bañee it sa doom la cas bi dafa compliqué mais bu fekkente ne yow xale bi bi nga ñëwee nee nga ah nga ne cëpp ëgg si gis ko mu ëmb waatoo wuleen de dama lay wax waatoo wuleen nga fase ko non nga nga ne ko kii du sama doom mu nungu ne kii du sama doom ah. nga fase jarul waatoo ah waaw ñëpp xam nañ ko nga ne ko demal ñibbi sëy ba tas na yow tu n'es pas complice kon kooko donn la doo ko donn du nekkutu sa doom ndax comprendre nga doo ko waaw voilà nga xamante ne daal ci biir ah, mais ci buum la ëmbee si sa biir la ëmbee mais mooy ah, gaa yee koy wax de mooy li ma la wax ni dama na la nit ñi loolu la ñuy wax par défaut ah par défaut dañoo jàpp ne si ëmb bi la mais man dama la leeralal dama la question bi kon kon kon day dépendre ci borom ci jëkkër ji dafay dépendre non du si dépendre si jëkkër ji cas bi la bi ma la wax noonu ci biir xam nga ah. bi nga xam ne bañ na ko. ñu ne ko déedéet yow tu es complice. xam nga boobu dépendre si moom. kaabu mm-hmm. bu complexe la. xam nga wax naa leen ne kii dafa ñëw bañ. Mm-hmm. waaye dafa continuer sëy ak jabaram ba mu am doom. Ah te bi mu ne cëpp jóge France ñëw fekk na ëmb bi te am na mbokk yi sax yu ko doon téléphoné di ko wax. mais xëy na situation demee na noo xam ne il préfère continuer ak jamono. nga ah. continuer ak moom ba mu jur lu xees pecc karaw ga baramu nga ne déedéet man nit ku ñuul laa bawal laa dëkk. waaw ñoo la tu es complice. parce que da nga ko bi nga ñëwee waxoon nañ la ko. te gis nga ko mais da ngaa di sëy moom. doo dellu ginnaaw mais nag boo taxawee bañ ko ah moom it nekkul sax di waat mu ne ay la yëwan. xam nga moom la ñu tubaab yi jàngal ne ki na di rien consent. waaw mooy loolu ah, moo tax cas bu la ci waa ji la dépendre ci nit mën na ci dépendre parce boo ñëwee dès le dès prix bâbord rek départ rek nga rejeté. jeex na boo dépendre yow ëgsi nga. gis nga ko nee nga ko man ça fait deux ans fekk naa la ak ëmb du man mu ne ay du man suturaal ma nga suturaal waaye sëyoog moom nga bàyyi ko mu dem ba nga yëgee affaire bi rek bàyyi nga ko mu dem booba sëy loolu la sa rafetoo ngeen mais doon donn la doo ko doon donn parce que du sa doom du sa doom soo continuer di sëy moom nag ba mu am doom nag ngay soog a hésité di soog a con indi sa conclusion dañ lay wax ne complice nga. sa doom te bu ñu demee ba nga xamante ne sëy ñi ngi ciy teg ay kaamir di waat. yaakaar naa ne ku ne dem moo bàyyante jot boobu bi la de. loolu nee na nee ñu bu ñu baal ma ma bu ñu eggee ci sëy. Mhm. bay teg kaamir ku nekk di waat yaa jur kii wala juróo ko. foofu est-ce que jarate na nit ñi di sëy. loolu moo tax ñu la bu ngeen waatoo rek yàlla tas na sëy boobu bu ngeen waatoo waatoo ci yan anam non waatoo mooy ku góor ke ne juruma ku jigéen ki ne maa ko jur yaa ko jur loolu mooy indi waatoo bi yàlla tas na sëy ba non sëy ba tas na bu ngeen waatee rek tas non seulement tas na meer kenn du doon sa morom. Ah, li wér daal mooy fu confiance jeex dara desatu. dara desatu man nag sama question bi dina xaw a doy waar. ah, ah waaye nañ ko bu soobee nga fekk de. nañ ko dégg ni ma ko waxee. <laughs> ndax am na ci réew mi. <laughs> sama maître a ngi nii toog moo ma yóbbu woon ci ndaw soo xamante ne ay doomam bokk baay la leen di woowee. bokk baay. Hmm. ndax ki bokk ak doomam baay moom loola foofa ndono nu mu fay demee. comprendre wax. Ah, moom maanaam baayam ma jur ay doomam ci gàttal. yow yow sama bi ma fa yóboon ay seex la am di leen wooyee bokk baay. waaw ah. léegi moom ca boppam. Mhm. moom nit ki moom ndaw si. Mhm. bàyyi boppam. moo juri doomam mais loolu ma daf ko takk. non inceste la ah, waaw mais loolu kay Adja. <laughs> waaw waaw voilà Adja Linguère gi dafa garaaw xam nga lu ma ci métti awa pilo awa pilo ak aada ñoo koy sponsorisé ci xeet yi. sponsor officiel. non dama ne loolu moom inceste la. Mhm. ah moom nga tuddee inceste ku sëy. mais inceste tam. waaw. non dama ne non islam moom xam nga inceste ak lépp l' essentiel rek mooy. Mhm. xam nga ne yow d'abord double faute la. parce que dañ la wax na la ki ngay doon mooy ki nga sëy ki nga takk ci sëy mhm. waaye ki nga xam ne d'abord moom araam na la parce que kooku daf la araam mhm. islam dafa wax ay jigéen yoo xam ne lew nañ la ak ay jigéen yoo xam ne araam na la mhm. yow da nga jéggi ñaari barrière da nga njëkk a jéggi ki nga xamante ne nii araam na la ba pare ah, nga daal di takkoo nga nga nga donc loolu inc loolu lañ tuddee inceste ci tubaab kooku moom mooy ki nga xamante ne ni moom moom faute bi mu def moom jégg na daay kooku yàlla koy atte mais loolu moom donn mënu fa am parce que sëy amu fa leen am ba pare tamit lu xaraam jiitu na sëy ku maamam ku maamam di papaam waaw loolu dama ne mooy li nga wax nii loolu loolu ñaaw téef la rek mais foofu moom kenn waru fa tudd sax waxi sëy ndax waxee dond parce que ñun si miraas lañ nekk mhm. bu fekkee ne si miraas lañu nekk kon miraas moom sëy moo ko lal loolu lañ leen wax ñun li ñuy discuter yëpp mooy ak jafe-jafe mooy koo xamante ne ni am na doom te du nekkul ci biir sëy wax nañ leen ne doom jooju du doonu baay bi baay ba du ko doon mhm. mais nag bu fekkente ne yow kii ku mu ku wërta euh, sëyal sax moom nga amal ñaaw teew ñaaw teew kenn bu mu xalaat doon dante foofu mhm. waaw ki ki ñu war a rey te reyuñu ko rek xam nga dañuy wax lislaam lislaam ku def nanga xam nga bàyyi boobu dañ ko war a rey mais kenn rey mais c'est ça c'est pas c'est que nag c'est que nag c'est que nag c'est que nag affaire yi nag vraiment dafa am am demi mesure quoi parce que koo xam ne tey ji da ngaa tiim sa doom ji nga xam ne yaa ko jur ama moom doom ñu war laa rey kenn reyu la ñu bala fii ci société bi ngay daataa dalax loola neex def ba ba dee jot am ni ñu am waaw voilà euh, xale bi nga xam ne xale bi nga xam ne judduwul ci yoon Eva sama laaj ba laay laajaat. borom xam-xam yi nañ ma ci tontu yow mii. ak ñi nga xam ne man xaw ma dara ab dof laa. mais dof bi moo leen ni posé question bii ki nga xam ni dafa toog judduwul ci say keps mm-hmm. judduwu ci. mu am jabar mi ngi mel ni Babacar mais ci régi ba am jabar ba pare dem ëmbal doomi jàmbur kooku l'islam da koo rey loolu la ñu wax man am naa beneen question waaw xaaral charia da koo rey mhm. dafa rey Babacar mhm. mais reyuñu Babacar bàyyi Babacar di dund xale ba di dund ñu ngénte woon xale ba ñu ngi ci koñ bi imaam ya ustaas ya ña bàjjen ñëpp ñu ci dëkk bi reyuñu Babacar waxuñu xale bi dara xale bi di màgg di màgg jàng ba toll yenn niveau yi yàlla may ko wërsëg papaam it Babacar yàlla may ko wërsëg ñu léegi imaam yooyu tuddoon xale bi ngénte xale bi ñëw ñëwaat toog daal ni ko eh bien waaw juddu woon ci sëy te jour boobu kat la koy xam daaj koy xañ daaj koy xañ carrément li nga xam ne ndono li te moom moom xale bi mooy ñëw fay ay nen yu mu tojul léegi nag ginnaaw rey ñu Babacar ci début ba lan moo tax ñu war a xañ xale bi ca fin ba ak ndonom pour que appliquer wuñu fii ba pare bëgg ko appliquer à la fin. waaw léegi bu fekkee mën naa seet tontu avant ngay dama bëgg dama bëgg a porter plainte Miya hmm. <laughs> na xam nga bu ñu dooroon pap ji door yaay ji itam wax day jeex ndax doom ji sax du fap juddu. day jeex ni ko waxee laa ko waxee man ku may wax dara nag. na nga ko xam moom ak Juma Jaxate Juma Jaxate itam laa ko porter plainte. li may wax fa jàpp li mu wax juum na <laughs> jigéen joo xamante ne dafa ëmb da nga koy bàyyi parce que doo rey doom ji doom ji yoon yoonu doom ji. Ah. yoon reyu ko. dóori dóori bu ñu dóoroon yaay ji non non dafay am doom ba pare ñu door ko. ah, ah bu muccee waaw bu muccee kay lañ koy door waaye doo ko. ndax yàlla mi may ma ah. jàmm dama sonn. voilà doom ji kay deful faute. waaw deful faute doom ji ban faute la def. deful faute yàlla moom dafa juste. comme am na doute ci ne kan moo ko jur ndax judduwul ci sëy foofu rek lañ taxaw mais moom bu doon milliardaire it baay bi di ko seet léegi na yow li nga wax tey sànq yow El Hadj Ndoye Bane mm. ah, nga nekkoon bu ñu bu ñu reyoon baay ba problème du am mais problème day am parce que baay bi buñ ko reyee bàyyi na fi alal même bu fekkoon ne bu mu defee action bi sax lañ ko ah. na fi alal donc ah loolu ngeen di wax noonu demawul noonu parce que alal jàng waaw tey jur bi mu ko defee ñu xam ko buñ bu dee dañ koo dóor téeméer yar mu dee ca dóor teewul alalam mi ngi fi alal dañ ko war a séddale. waaw bu xale bi wax naa la ne. ba même yaay ji buñ ko waree dóor xale bi foog mu dund. xale bi du bokk. kon question bi ba tey du bokk. non yàlla dafa sévère de. bu neexee. yàlla na bala ngeen xam sévère sévère am. aywa yàlla buñ ko xam. waaw kay jeex na <laughs> yàlla buñ ko xam. <laughs> man bi ma bëggoon laaj mooy. ki nga xamante ne dafa dafa dafa faatu. Mhm. bàyyi fi ay bor. Mhm. lu mu am am alal bàyyi na fi ay bor yoo xamante ne donte ay mbokkam xam nañ ko. Mhm. wala xamuñu ko. bala ñu koy miraas dañuy fay bor yi ba noppi. wala ndax bu fekkee ne bàyyiwu fi dara lu ñu miraas kan moo war a fay bor yi. waaw loolu la xam nga miraas moom bu fekkee da nga am alal. Hmm. miraas dañ na la li jiitu mooy ci alal yi bu ko tegee xam ne bàyyi na fi nangam ci alal. Hmm. li jiitu mooy fay bor bor yëpp. mooy bor yoo xamante ni li si jiitu d'abord ay càngaay yeeg yooyu yëpp léegi sax nit ñi du ñu respecté loolu mais ci alalam la war a jóge mais nag bu fekkee ne am na ku taxaw ci doom yi wala si njaboot gi ne càngaay yi maa ko jël dara new ci bu waroon a fay ay zakkat ak yooyu wax nañ ne loolu tamit kuy fay zakkat mébatoon ne damay fay ba zakkat teg kooku zakkatam boobu moo war a génn muy asaka hmm? mais bu lu bëri yooyu nga xam ne moom la ñenn ñu tuddee boru yàlla moo war a jiitu bor yi nga amal nit ñi nag topp ci dañ ko war a génne ba pare la ca des nag la ñuy miraas mais nag bu fekkante nit ki ay bor kese la toujours ngeen dégg ne bu ñu tegee jaag bi nit ki bu faatoo jigéen ñi duñ ko fekkee buñ koy teg du jullee dañu naan ku mm. ameel bor demal ci diw parce que bor yi la ñu war a njëkk a génne moo doom yi njaboot gi ñi ko war a donn ni ngeen amee droit donn ko ni ngeen amee droit fayal ko ay borom sauf nag kañ ko ameel bor baale waaye yéen lépp lu jógee ci seen wéju rek. maanaam damaa donn bor bu ma war a fay yéen ay borom d'accord. ci gàttal. mais li mam yi di wax souvent. keps am na am na kuy laajte xam naa. nit day gaañu kii moom ñaareel bu jonge la doy baan baal ma. balaa ñëw baal ma doy moom nee na ndax jëkkëram amul droit yóbbu ko ca kanamu notaire bi may ko këram. amul ci ah, droit question bu baax de. <laughs> kii daal ab ñaareel la. bare pexe rek. léegi. <laughs> ci donation. ci donation la. nee na ndax jëkkëram amul droit yóbbu ko devant notaire. waaw jeex na loolu mooy ak chéri I love you je euh, moom la ñu ah? tuddee donation ci miraas donation. Ah. mooy maye mooy li nga am droit maye ci sa alal. bunt boobu lay dugg léegi nag bu dee lislaam la wax naa ko sànq dama ciy jaaraat. Hmm. am nga droit ci sa testament. nga bind ne may naa diw may naa diw mais ñu ne la ngay maye bu mu weesu. ñetteelu alal ji waaw kay mais bu mu doon nag ku la war a doon kon moom moo ma di wax ah jëkkëram amul droit bindu testament dem ci notaire na may naa ko nangam te mu am yeneen soxla conseil wu ma ko am yeneen doom bu dee takku suuf nit ki nit ki kaay <laughs> kaay waxin la damay laaj bu dee takk suuf mhm. mu tabaxal la kër de son vivant mhm. may la oto de son vivant mhm. yóbbu la devant notaire yaa moom sa kër yaa moom sa non xaaral devant yàlla moom li mu xam moo jiitu notaire waxu yàlla moo jiitu notaire notaire ñun ñoo ñoo toog di ko wax xam nga waa kay léegi nag bu dee da dem ci justice su Sénégal moom notaire bi lay xool daal ne titre foncier bi euh, Mariam Ndiaye si ne. mu ne moo ko moom. Hmm. mais bu fekkente ne yàlla yàlla la ñuy waxal. dañuy wax ne kër gi nga may sa benn soxna te nga am fi yeneen soxna am fi yeneen doom. Hmm. amoo droit boobu bu boobaa dañ ko war a mirasa. Hmm. islam moom loolu la wax. kon kër ga lewul. lewul li ngay maye boo koy may sauf nga am ay doom damay jël kaaw doom nga am ñetti doom am ñetti kër bu la neexee doom ju si nekk nga may ko kër. dañ la loolu nga xam ne yow yemale nga ci sa dund may nga ñetti doom yi nga am ku ci nekk kër bu boobaa donc dañu la wax ne la parce que cas boobu dafa ñëwoon si yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ku am ay tool joxe naa ko fi koroog ay tool yu mag doomam yi kenn moo ko ci déggaloon mu ànd ak moom ba ci yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ne ko sama doom ji rek moo ma déggal si sama njaboot gi mm. ndax mën naa jël sama terrain bi bu ma ko may lu lépp ma jël nanga may ko mu ne ko amoo droit boobu mm-hmm. ñëpp ngay yemale sooy maye nag da nga leen di may ñu tolloole euh. lu ko may nga bàyyi boo jógee ñu yem ci waaye amoo droit di may kii te mayoo kële mais mais question bi Eva wax loolu ci l'islam lañ koy appliqué. waaw mais bu ñu demee ci wàllu justice bu ko waa ji buñ ko mayee bu jëlee kayit gi jox ko jabaram tubaab kayit la xam. kenn du ci mën dara. da ngay seet sa yàlla sa digganteeg sa borom rek. waaye lañ la xas ba may moom téye nga ko. man daal li may conseil góor ñi jël leen seen kër yi. Eva sa xarit ngeen def ci seen turu doom yi. te te dañ ko dugal sama xarit. waaw mu euh, ne bu ko tekkee noonu de bu ko ne moom dama ne nee ko moo moom ci yoonu ñii waaye yoonu yàlla moomul kër gi bien mais dafa préciser si s'il a une seule villa alors ma très chère ah, s'il a une seule villa ah, faaw di nga ko séddale su dee nit ki benn villa loolu sax conscience sax conscience sax baaxul dama ni ci man daal ñii dund laay waxal ñii dund ku jël ñëpp bokk te yor yori njaboot yàlla gi nga jigéen ñi duñ ma bàyyi ma wax parce li may arrangé wu leen doy baan waxal voilà da je souffre ci ci plateau. damay souffrir sonal nañ ma. moo tax saa boo xëyee bëgg a démissionner ma bañ. dama ni. góor ñi yàlla may wërsëg. waaw te ñu am ay terrain ki kër. nañ jël kër yi def ko seen tuuru doom yi buñ ko def seen tuuru jabar yi soo leen ko defee seen tuuru jabar kenn xamul kuy jut bis boo leen fi faatoo am yambar la jël dugal fa toroxal seen doom yi. lu leer laa lay dox le maa ngi wax képp koo xam ne yaa ngi góor am say kër da nga desee xam lan la ñu wax ci diggante jëkkër ak jabar xawma man samay wax laa wax man samay doom gis nga leen laal ba xam benn waaye dañuy jël fee da ngay da ngay liggéey 40 ans pour sa njaboot pour sa famille ah nga faatu jóge fi ñoom ñu jëm wuti beneen jëkkër te naan alaaji deux ans yëpp dafa feebar nangam ak nangam yeex naa dee dundu woon yooyu commencé di pasar pasare sa alal jël leen seen alal ngeen def ko ci seen turu doom yi soo la fi jógee seen doom yi mën koo jariñoo sinon am yambar la ñuy jëlee fële ci àll ba goru yetul mu ñëw dond la jël say photo dugal ci suufu lal bi jël say si jaardaak yëpp dugal ci suufu lal bi maanaam sa sa image dootul feeñ fenn maa wax loolu bala ngeen di ñëw damay ñëw ci ndoy baan li mu wax waaw moom dafa jël problème pour mu régler ko mu indiwaat problème mooy li nga def. yàlla nga gudd fan. waaw kay yow da ngaa bëgg a indi problème. Ah, man daal góor ñi lay xool damaa xam jigéen ñi rek. waaw kay problème bi du loolu de. waykat ba nee na moom bëggul góor gu nay waaye man bëgguma góor gu iñaan. ndax lu muy wax du ko xam. iñaane iñaan iñaanu ma samay doom. war naa am ku ko way góor gu iñaan bëgguma góor gu ba ne xam nga li tax ma wax loolu. xam nga eh? baay may ma ma ma kii jël say kër def jël say kër def ko sa tur. gis nga ah. yal na yàlla noppal jël problème transposer ko ci problème pour régler beneen problème yàlla nga fi yàgg gis nga il est mhm. parce que par il a dit tout haut ce que les autres peuvent penser tout bas gis nga euh, ni ma ko waxaatee woykat ba nee na bëggul góor gu nay mhm. waaye bëgguñu góor gu iñaan mhm. ndax góor gu iñaan mooy def deewaguloo yow yàllaa ngi la may àdduna yaa ngi ci àdduna naan sama lële naa ko nëbb balaa maa dee sama kile naa ko kile sama nii naa ko yow yëf iñaan naa jël sama alal def ko ci sama turi doom soo ko deful billaahi da ngay faatu jigéen ñi sa jabar jang fi baale mooy caxa caxa saaw lànk leen ndoy ay ñu tàggatoo waaw kay noonu li mu bëgg wax rek laa ko bëgg leeral rek mu leeral ko jum leeral ko boo gisee ma ne ko da ngaa jël problème réglé ko problème yow da nga am ay doom yu bari amoo benn doom te kër tur kenn cay nekk xam nga doo xam koo koy tudde bu boobaa koo koy jox si doom tur yi bu nekkee ci yow bu ñuy doone ku ne dana am lam war a am booy maye amoo droit may benn doom amoo droit may si sama miraas sama testament ne doom diw laa ko may wala jabar sangam niñ la waxee ne bu ko may sa jabar sangam ni lañ la waxee ne bu ko may sa doom sangam tur wi si yow la ne yaako moom yaa leen yaa leen jaboote mais bis boo faatoo nag dañuy kër jël kër gi teg daal na léegi samay dabar sama kenn ñu indi certificat d'hérédité ah. ku ci nekk la nga war a am rek nga am mais mais père nooy amee nooy amee benn kër parcelle am cent quarante cinq doom loolu lu suñ ko séddoo xanaa ku ne dërëm la koy am doy baan comme dafa bëgg a conclure ah. damay bañ sama ah. wax may ko mu conclure damay bañ euh, euh, euh, Miya Ndour fayal micro am aywa damay la jum nga conclure ket sa gi dee waa kay gis nga li mu wax li mu wax ne bul jël jabar tur bi nga kër gi nga may ko sa jabar wala nga def ko sa tur jabar man loolu ànd naa ci mais solution bi mu indi déglu ma solution bi mu indi na def ko sa turu doom loolu laa ko ne beneen problème nga indi tur wi si yow lay. yàlla na fekk doom ja doom neex euh, ndey ja neex doom ja. laa koy mais don euh, kër. waaw moom rek loolu sax mënees na nekk mais si l'islam day fekk nga yemale. dëgg la boo ko yemalewul wut. yow dama lay gën a leeralal yow li nga bëgg a wax. parce que man bind naa ko. Mhm. soo ko yemalewul nga jël sa benn sa jabar ji nga ne ko yow laa may sama kër. boo ko mayee kër gi nga faatu nga teg ci deux ans. Mm. keneen takk ko soxna si faatu. Mm. yow sa alal. dem na feneen. Mm-hmm. te te demul say doom yow loolu nga bëgg a wax yow. Ah. Ndoye yow loolu nga bëgg a leer loolu nag non non bu la wërsëgu kooku la. bu fekkee ne da ngeen toppoon lislaam da ngeen di bàyyi ba miraas doom yi am la ñu am jabar ji huitième dong la ci am te yow may nga ko lu ëpp huitième xaw ma ndax yéen a ngi ree. xaw ma ndax ak ñu laa dégg voilà dama soo ko defee ci kër gi turam may nga ko presque cent pour cent. te moom juróom-ñetteelu alal lañ la wax ne moom la moom lé sumun bi la moom léegi soog ko joxe yàlla rek a xam mu dewal deux ans moom si boppam mu jóge fi mm-hmm. nga jëlaat euh, ñu ngi Babacar takk na voilà kooku war ci am un quart ci alal ji xam ne amu ko woon te liggéeyu kii loolu la waxee bàyyi leen seen kër yi seen tur bu leen ko def seen turu doom bu leen ko def seen turu borom sax. jërëjëf Diouf loolu man man man kontaan na ma xam nga waaw mu wax li mu wax dama ciy d'accord ak moom xam nga lu tax. waaw Sénégal lañ nekk gis nañ fi bar buy matu gis nañ fi nen buy duggi marché lu ne gis nañ ko fi. taseegu mag euh, xam nga. nen buy duggi marché yàlla ga ma jógee. xanaa xëy tey suba ak Kayel xam nga président dafa demoon Kayel temps yi damaa fuuy. xam nga fii lañ nekk ci réew mi da nga fi gis taaw boo xam ne dañ koy weccee kookum néew borom néew bi di laaj fukk ak juróom ñu ko teg. Mm-hmm. ko tegal. dégg nga waxam. fukk ak juróom yu ñu ko tegal. xam nga kuy dund ba pare ñu lay weccee kooku néew borom néew ba di laaj fukk juróom naan dolli leen ma fukk juróom ma jox leen néew bi te jël kiy dund. Ah, oh, uh-huh. xam nga kooku mooy taaw bi nga xamante ne dafa manqué na ñett wu ñaar wëree ndax aw day mat. Mm-hmm. ndax bu ñu nee famille escalier la moom moo war a nekk marche bu njëkk bi. ci moom la ñëpp war a jaar pour yéeg bu fekkente ne nag yow sa baay dafa jëloon sa tur bind ci euh, euh, kayitu këram. Mm-hmm. def ci sa tur. Mm-hmm. sa baay dee nga génne ay soxnaam. Mm-hmm. génne sa ay raq sànni ci biti. ma yàgg dafay wax ndoy baan ne la koo dégg mu naan la bu sama baay doon dund ma tabaxal ko grade ciel. dereeti baayam nekk ci réew mi mu bàyyi ko muy tambaambaalu ci mbedd mi boo ko ñemee ne ko li ngay wax du dëgg su baayam dundaatoon mu yóbbu ko ko fa pantare waaw léegi fa nga tàgg tàggatool tàggatool foofu yaayu nen ne nen ngi lay xaar euh, nen ne nam may xaare nen ne dooma sànni ñaan muy nelaw ma ma góor gi tàggoo ba noppi jum euh, kontaan nañu lool jërëjëf waaw man maa gën a kontaan maa ngi leen di sant di leen gërëm di ñaan yàlla seen télévision bi fu mu àgg ren euh, bu déwénee na ko romb amiin yaa rabbi Sénégal yëpp kontaan nañ ci yéen asalaamaaleykum wa rahmatulah macha allah aywa merci beaucoup Eva comme ni remercier bu baax a baax monsieur Cheikh Ahmadou Bamba Dioum di remercier ñëpp ñi nga xam ñu doon seetaan waaye góor ñi nañ bàyyi bu baax ci li ma leen xel ci li ma leen di wax seen alal yi ñu yor su dee benn la nañ ko def ni ko sëñ Dioum waxee. waaye waa am benn kër am 136 doom moom soo dee di nga naqaree milliard mais bu leen yàlla bu leen sëy ba neex ba ngeen jël seen alal ji di ko def seen tuuru jabar yi dara wóoru ci da xëy suba julli gee wow koŋ ñu jël kër ga dugal fa beneen yambar ñun ñu lay xas dee nga bu yàgg ñu lay xas alaaji ba mu feebar yu kenn xamul jël say photo dugal ci suuf lal bi di la wax yoo xam ni da ngay wax say jàng doom yàqu lépp tardé nga xëy suba yow yow jeeg bi yow mi jël am yambar dugal ci biir nga ngay xëy suba dee li daal li sëñ Bamba wax daal lay dal maanaam ñu miraas la miraas mi alalu ka fa ka faatu moom la ñuy miraas alal ji ñu jox ko ku waa yi nga xam ni kat bi ñëw takk la mooy ñëw jël lu xaaju alal ji yóbbu ko tey liggéeyu ci dara muus leen ndóoy nga sant say alal na santu ndóoy ba keroog ngay ngay ngay ngay ngay ngay ngay faatu say doom doondu ko sinon rek yaa ngi ci erreur am na jéeg yoo xam ne mooy loolu lànk leen bu suba ak jàmm Seydi Ban jërëjëf. no comment lañ koy def <laughs> nee merci beaucoup Eva merci à tout le monde euh, kontaanoon nañ ci jotaay bi xam ne am na point yu bëri yu ñu éclaircis waaye am na yeneen yoo xam ne euh, desati na muy héritage daal nga xam ne la na réew mi euh, te point bu ñu ci tegit du tere dina am leneen loo xamante ne waaye assurance vie bi bëgg naa ñu dugg ñu laajte ci parce que dafa am solo bu baax waaw ñu souscrire ñuy assurance bi mm. kontaanoon naa toxob di leen jaajëfal di wax ne euh, Adja Ombeliko maa ngi koy remercier bu baax ci tunique bi euh, di remercier également ki nga xam ne moom moo di euh, Nafi Kebe Fina White jërëjëf Eva. très bien merci Kebs Mami Linguère waaw. xanaa dellu di di di bégaat ci ñëwaat retrouvé waat sama famille bi rek ndax xam nga yéen dangeen di xëy di ma di ma bégal ndooy nag man ndekete man je bien man ndooy ndeke yow laa bëgg delluwaat di waxaat ñëpp daal nañu xam ne bëgg ñeex mu tàng warta bëggum ñeex warta mën a tax a dëppoo mbana lu tàng ndax foo koy yennee moo lay të taam na mbir moo xamante ne ku tumbët la wowu damm da cay xaj gars yi nañ leen teyaat alal ji ki ko doon liggéey moom ko doyalu ko woon moom ci boppam matalewul woon ay soxnaam kon mbesmaa ñi mu fi bàyyi kon na séddoo ba rafet ndax àddunam day continuer di dox comme ni ko Serigne Cheikh ba waxee lu continuer di dox nag boo ci nekkee yow da nga koy rafetal ba ba liggéey fu mu yem mën a rafet delluwaat di remercier waat waa Sénégal gépp di leen wax ne xam naa ne namoon ngeen ma waaye xam leen man maa leen raw ndax man fépp ngeen nekk ci man yéen ñi may dundal di remercier nag ñi nga xamante ne tey ñoom ñooy sponsor officiel yi ndax dégg naa Baye Cheikh boobu la génne fan yi mm. ndax xam nga ñoom buñ ci jàppul du dem mm. ndax xam nga cin baxul yàggam yàgg ca taal baa tax mu jël jikkoom yéen a ñu sopp ba tax faaw ñuy solu kon faaw ñuy gërëm àndal di remercier Ndey Kumba Anglerie des VIP kooku moom yaakaar naa ne moom dootuma ko gërëmati dama koy bàyyeeg yàlla rek ndax cheveux bu baax bu teg bu nekk moom la mi ngi ci di ko nuyu moom ak yaayam ak Fat Seck ak ay rakkam yëpp waaye di gërëm sama rakk joo xamante ne moom mooy Koura Mbisaan moo ma takkal ba ma rafet gis ngeen ko moom nayul benn yoon ca la muy def woo leen Koura mu yóbbu leen te fa mu nekk yu baax yu dàq yi ma nga fa mi ngi ci 77 925 925 82 80 ki jaar ci yére bi nag Eva di sama rakk ji Anta ñaalum fële ca Louga delluwaat di waxaat ne maa ngi ziyaar njabootug Maulana Cheikh Ibrahima Niass gépp ndax gis naa ñoom niñ ma bëggee niñ ma taxaw xam naa ne fañ la jëlee de fañ la jëmee ka dàq te yaa nga ca yoon wa yal na nga àgg ak jàmm Koura Mbissane ñu ngi koy niroo daf ñu ngi koy nuyu daf may fàttali Koura Mbissane jongama Koura Mbissane yaa nu tee nelaw ñu ngi lay nuyu bu baax a baax di nuyu képp ku toogoon di nu seetaan ànd ak TFM la ñuy wax xam ngeen ne mois de décembre mois cadeau la mois de décembre mois la boo xam ne wax dëgg yàlla ay xeetu baax baax yu ne dañ ko joxante comme cadeau et ñun yéen dañu choisir parce que yéenay sunu ay téléspectateurs saa su ne mën ngeen a ci lépp loo xam ne gis ngeen ko ci décor bi jële ko ci chambre à coucher bi ba ci oto bi jële ko ci salon bi ba ci gazinière yeeg frigo yi lépp yéen ko moom leen woote saa su ne ba bu caméra yu offee sax continuer leen woote parce que dinañ leen mën a inscrire seen émission wareef nag tey ñëwoon ak yéen ci li nga xam ne mooy mirage ñu invité woon ci monsieur Bamba Dioum mi nga xam ne daf ca bind livre ndooy baan moom mooy passe-partout di gis lu ne euh, Kebs Thiam moom itam di fegoo saa su ne ak sénégalais de l'extérieur yi mami Linguère nag moom maamam da koo sol ba nga xam ne bu fi toogee war na fee toog ndax yàgg bawul dara te itam fa nga jëm da ngaa xam fa nga jóge macha allah il faut avoir un profond respect du passé pour savoir lan ngay tënkee sa présent ñu ngi kontaan ci yéen di leen ñaanal bon appétit di leen wax ne lu dul baax baax ko gën baax a noppale boo bëggee buñ la yóbboo ca sëkk ya nga tàllee ko ñaret tëdd ci jàmm fii nga koy jëfee laataay dara yal na nu yàlla may dégg top on vous aime très fort et à tous